lii baru maayu mbaa midaadi wa aqlaami wa lawni wa galgali wa jismi liman lii wa jaalisa wal wahbaa midaadi wa aqlaami wa lawni wa galgali wa jismi liman lii wa jaalisa wal wahbaa nawaytu lahu shukran كثيرا كما دنا بي واسفي يوم الجوال الله sant yàlla julli ci yonent bi santaat sëñ Tuubaa mi si yaakaar yi tey di si yaakaar yi ëllëg di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ko ñaan si yem di Fall mu du mend ak soxna Mami Sa jërëjëf ci laaj bu solo bi di leen nuyu bu baax euh, waa académie Minam ak euh, télé bu mag bi nga xam ne mooy Al Mouridiyyah di leen jaaraat du baax liggéeyu Ahlu Café nag ci euh, mboolem liggéeyu Serigne Touba yi sono maam Isa mi nga xam ne mooy borom liggéey bi di bopp bi daa xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul euh, daa waxoon doomam ju tedd ja sëñ Mudu Musaa ak sëñ Fallu ak euh, sëñ Masamba ne leen du ma magi kenn du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn li fi ne man da ngay da ngay jaayante ngir jënd ko moo tax soxna maam Isa xam ne liggéey si Sëriñ Tuubaa mooy njariñ moo waral toolu bi lislaam bi yaatu lool waaye nag moom mu farawoo kafe gi ku ne xam na ni daleen na boole woon moog sëriñ atu Diagne moom Cheikh Mamadou Mountakha muy liggéeyam sëriñ tubaab bii ñuy amal ci koor gi ne leen waa Hizbut Tarqiyyah nañu yor wàllum njàng mi soxna maam Issa yor wàllum berne mi lu xeetu ci café geek wàllum ñamu Tuubaa yeeg moo waral ñoo Hizbut Tarqiyyah ñu ànd liggéey bi kon liggéey axlu café yitte ji dëgg mooy mooy mooy fu sëriñ tubaa woote rek te nga xam ne maanaam maanaam war na faa dem rek Euh, mu ñëw teewee fa teewaayan boo xam ne day day taw féexee te bu ñëwee mbooleem loo xam ne luñ fa war a luñ fa war a jëfandikoo la moo koy moo koy moo koy amal di ci di ci liggéeyal Serigne Touba kon ahlu café fu ndoonatu Serigne Touba rek mu nga fa comme ni ma ko daan waxee rek euh, fi mu toll nii euh, koor gi bi mu commencé chaque jour ñu ngi segg 30 kilos café 30 kilos café la ñuy segg ci poudre suukar si tamit dañuy segg dañ koy suukaree lu toll ak ñaari saako suukar comme ni ma ko daan waxee rek mën a café 84 litres ndox lay def quatre-vingt-quatre litres ndox léegi litre mooy mooy mooy potu ndaa léegi quatre-vingt-quatre litres ndox li koy segg ci poudre kafe mooy ñetti kilos kafe bu fekkee ndoxu Touba maanaam bu fekkee ndoxu Touba ndoxu Touba mooy ñaari kilo liibar bu fekkee ndox mu neex la mooy ñetti kilo boo ko seggee ba mën a gi àgg day nekk 84 litres ndox kon ndox bu neex ñetti kilo moo koy segg ndox bu naqari ñaari kilo ak liibar 30 kilos yi ñuy segg maanaam bu ñu paree danañ desal ñaari mbana yoo xam ne réserve lay doon ndax mboolem Baye Fall yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci ndog yi di indi ay ndogu bu ñu ndax Baye Fall yi ñoom ku ne xam na ni bu bu ñuy togg seen ndog duñ ko ñam duñ ci mos xorom duñ duñ ci jëfandikoo mbooleem loo xam ne day jëm ci sëriñ bi waaye bu ñu indee seeni bool ba ba tudd yàlla ba pare ba wàcce ko fii teg ko dañuy ñëw fii nga xam ne mooy waañu kafe gi ñu daal leen di dëlaleel ci kafe gi sëriñ Tuubaa gi nag ñu berndeel leen ci kon ñaari mbana yooyu nga xam ne moom leen leen réserver bu ñu ñëwee moom leen di servir jox leen ko addi maam Cheikh ndax ndax ndax ndax ñoom kat ay jàmbaar la noo waral ñu leen di ñu leen di réserver loolu kon li ñuy segg ci café dana ëpp ñaari mbana waaye ñaari mbana yi Baay Faal ko déedéet dara du manqué chaque jour danañ segg 30 kilos waaye bu fekkee vendredi moom li dana dana dana jege 40 ji wala fas nañ laa yéene berndeel ci mbooleem ndog yi fii defal café gi nag mooy tawfeex ndax Sëñ Tuubaa na ma ko waxoon Cheikh Salim Mbacké na jàng xasida ak naan café dafa bokk ci mandargaam yoonu murit kon bu ngeen gis muy jàng xasida naan café bu leen nattal la kon moo waral ñuy jëfandikoo café gi mooy bâche waaye mboolem xeeti bernde yoo gis rek ñamu tubaa dañ koy defar fii ngir terale ko talibé Sëriñ Touba yi jërëjëf ñu ngi sant bu baax di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér Mbàkke amuñu fayam moom ak dundam mooy suñu tawféex ak yàggam fi mooy suñu njëriñ comme ni ma ko daan waxee ndax Sëriñ Touba kat nii la ko daan defee ci njaareem moom mu ñëw di ñu ko defal kon mbake na fi yàgg lool te wér mi ngi toog di teew xew xasida yi ñu ngi fii di liggéey Sëriñ Touba mu ñuy dégg ñu ko gis yàlla na fi yàgg loolu téwér ci doole Cheikh Ibrahima Fall Serigne Massamba Serigne Touba mas na ko woo ca njaarim na ko ndax manees ngaa defar kafeeg suukar ba nees ba manees koo naan nee na Serigne Massamba ne ko est-ce que Mbàkke Balla nee na ba mu ko defee rek ci tënk ba ko Serigne Touba dane ko Massamba xel nil kaas nee na Serigne Massamba daa xel li diggi kaas Serigne Touba ne ko na fees ma fàggul leen ci taaxum àjjana na ko nag sama naaru góor wii di café ku ko rusu tawar rusu ma laa teral est xam nga ni kaasu café bu ñu la ko xellilee yow murid bi wala yow jullit bi nga tee ko ne bisimillahi alhamdulilahi la si saqaana xayra sarabin wala xiddaa waqaana mbaa xam nga ne lu newoon ci yow ci tawat sëriñ bi dina na ko ci kaxe te loolu sëñ tubaa da ko wax soxna si gaawaan kon loolu mooy tawféexu sëñ tubaa ñun nag ñu comme ni ma ko daan waxee rek dañuy toog fii ci kër sëñ tubaa gi di dundug di toog di nos ci xës di yenn saa ñu guur kafe bég ñun loolu la ñu dund ku ne xam ne ne ku gis mbégtam cheikh mouhamadou muntaxa mi nga xam ne murid daa war di belli di bég kon nun faal noo ngi sant di bég di ñaanal Cheikh moom lu taxaw mu yàgg fi ñun daal ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi jëfandikoo ci soos yi muy Baay Faal ñu ngi noos ci xasida yi di jàng alxuraan mbooleem ñam ñun dañuy noos ci kilim la ñuy la ñuy tëdd ah, ah ndax Sëñ Tuubaa ci oto yi rafet la ñuy dugg ay murit ngir Sëñ Tuubaa ay jasneer la ñuy sol te ki ñu ko defal mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon Cheikh moom lu taxaw yàlla fekk loolu téwér ci doole Cheikh Fall saarani at ba ila daari salaam café gi xam nga moom nan kafe ak yaa nga xasida dafa nekk ci màndargam yoonu murit daf cee bokk man nag maa ngi yeroo ci keppaaru soxna Aysatu Gaawaan du Cheikh Ahmad nga xam moom bi Sëñ Tuubaa jógee ci géej gi mu indee café gi indil ko murit yëpp sërite ñu di ci barkeel di ci faju di ci saafaraw nga xam ne suñu amee naqar café tubaa la ñuy àndal moo ñuy giifal suñu bëggee café Touba la ñuy àndal suñu feebaree tamit café Touba la fajoo moo moo xam ne mooy suñu naan gi gën a ci yoonu murid bi mu dikkee Serigne Touba bi mu jógee Gabon jëlee ko fa doomam jooju soxna Aïssatou Gawane la ko jébbaloon man nag may rooti keppaar gu soxna Aïssatou Gawane googu nga xam ne ndigal lii nga xam ne moom laay séddalee café gi ci moom laa ko jëlee ndigalul café gi axlu café ci moom laa ko jëlee waaye teewul nag fédération la boo xam ne ay daayira Maam Jaara la lëkkale si biir réew bitim réew muy international nga xam dem na ba nekk ONG Ahlou Café Touba léegi waaye nag base bi mooy kafe gi ndax café gi ci lañ njëkk a tàmbalee liggéey bi ndax bañ jógee doon Ahlou lu rek ne Ahlou Café mooy jaami daayira yëpp daayira bu nekk rek ñun mën nañ laa liggéey topp ci sa ginnaaw lañu sëñ bi dimbale woon ndax dañoo nangoo topp ci ginnaaw ñëpp ndax Ahlou Café tamit amul xeej seen ñu ngi ànd ak ñëpp di liggéeyal Serigne Touba bépp xew-xew bu xew ci yoonu murit wala ci diine ji te ñu yëg ko dinañ ñëw tàngal kafe dem def ko addi Serigne Touba fii ba Tiwaawoon ba Njaasaan ba Laayeen fépp rek foo dem rek da nga fa fekk axlu kafe lañ fay def nag mooy ngërëmu Serigne Touba rek lañ fay sàkk di naan képp koo xam ne rek jàpp nga ci liggéey bi ndax liggéey bi ngërëmu Serigne Touba lañ ciy sàkk di ñaanal Serigne Mountakha Serigne Bassirou mu yàgg fi lool te wér yàgg jiite liggéey maam bi fu mu ci bëgg a egg rek mu egg fi nañ ànd ko moom di ñaanal Hizbut Tarqiyyah bu baax a baax ndax na ma ko daan waxee rek ñoom ay référence lañ mënuñoo ñàkk ci yoonu murit man saa su ne rek yoon wi moom roy moo fi nekk ak romb soo gisee lu baax nga roy ko soo gisee lu bon nga romb ko man nag ñoom dama topp ci seen ginnaaw rek leen rool roy lépp lu def rek bëgg naa ko ndax ñoom yoon wu jëm ci yàlla rek ci lañ nekk moo tax man maa ngi topp seen ginnaaw rek te saa su ne ne mooy samay kàddu te muy nekk lu dëgg ci man ma doon mu doon nit ñoo xam ni ma bëgg la ñu ma naw lool ma naw leen lool bëgg leen lool te ñoom xam nañ ko ci ndax jaxasoo nañ ba doon benn wax dëgg yàlla maa ngi leen sant di leen gërëm